cinquième combat de la soirée fii si arène nationale Faye production tegu ko mu nara neex ba jaaxal gars yi mais ñaari combat yi jóge fii yëpp ay avertise la jeexee benn combat bi rek a amagum di jël ñu xool bii ba xam dina gaaw dina neex bii niru na ma ko ndax ñaari poids lourd lañ ay demi poids lourd book bu ma juumul arbitre soufflé na wure wa dem na këng waxi mag dem na ndañ taale caatu kaasa ak ak ak. ak Saloum Signor lamb ji ki ko monté def na lu bizarre waaw waaw ñaari poids loolu ñuy bëri. waru ñuy bëri seen biir waaw waaw. waaw waaw waaw daw na jël ko. daw na jël ko takk ndigli mais kii mën na tàng de. parce que Rasulaay bëri bay woo bopp bopp bopp sa waay dóor ko tàng bi tër na ko lu ma la waxoon. newoon naa la ñaari combat yi foo jaar mu am jël day am jël booy bi daa njaxlaf mi ngi koy dóor mi ngi koy dóor ndengeñ sa waay ngi rasu saa yaa ngi rasu. ca Thiatou Saloum Sidor Gaza ñaari oh ñaari parcelle lañ ñoo ko seeni maam oh sa door na ko bilahi daan na ko oh, pop la waxoon daan booy Gaza bu door dooraat lañ daan wax nga booy Gaza bu door dooraat pourtant moo naroon a jeexal bëre bi si biir bëreem la juum waaw waaw daa forcé bëre bi non non kenn du ko forcé boo ko forcé juum kale kenn du ko forcé moo ne li xale bi doon jigéen xam ne kale yi nee na kale ko forcé wax na dëgg